Nous sommes l'harmattan, on souffle la fraîcheur de l'innovation. Nous sommes les enfants de la télé. Ces internet du Télé Sénégal asalaamaaleykum ñu ngi nuyu baax a baax di leen ziar di am mbégte contenté comme ni koy defee à chaque fois dans votre émission une heure chrono l'émission qui est au chevet de toutes les générations. tey nag ndaanaan lañ fi dajal ndaanaan ci kaw ndaanaan le grand parmi les grands ci métier bi nga xam ne nii moom la nekk talent bee bëri des fois sax je me pose la question est que lii la magie la ko yàlla may la je sais pas en tout cas peut-être tey moom dina si répondre bu baax a baax alors fierté laa ci am ak contentement bu baax a baax parce que comme ni ko waxee euh, c'est le grand parmi les grands sunu référence la sunu idole la dañ koy roy si moom bu baax a baax képp nga xam ne nekk nga si métier moo xam présentateur animateur wala sax journalisme parce que moom loolu yëpp la boole donc da ngay am ref da ngay am bégte ak contenté di toog ak moom rawatina ngay jàng si moom bu baax a baax DJ Yves lañ koy wax borom guddi gi l'émission bi nga xam ne nii moo wër àdduna waaye tamit borom GTV bi nga xam ne nii fu mu toll nii DTV moo doon GTV asalaamaaleykum DJ kontaan naa bu baax a baax di la daal si plateau bi. maaleykum salaam Momo maa ngi lay nuyu di kontaan lool ñëw tey ci émission bi. ci Télé Sénégal TV. Mm-hmm. di la gërëm ci invitation bi. merci c'est di rafetlu aussi liggéey bi nga xamante ne équipe bu Télégal euh, Télé Sénégal yëpp ñu ngi koy def. Mhm. actuellement ci paysage médiatique bi. Ah. merci beaucoup. Mhm. xam naa instant yii fu mu toll nii coono ngeen coono trop trop trop mhm. trop. alors sur ce day daal di commencé dañ si waxtaanee ay ponc yu bari bari day waxtaan ak moom si wàllu métier waaye dañ waxtaan si nga xam ne tamit moo nar a xew le 29 juin incha allah rabi foofu sa Zénith rendez des chics c'est le rendez-vous des branchés comme ni ko mm. am ni ko waxee mm. en tout cas comme ni ko Ousmane bëggee mm-hmm. les hommes les femmes les plus en vogue vogue vogue mm. des du Sénégal mm-hmm. parisien dañu fa dajee insha allahu rabi alors fii nañuy commencé sax fa laa mm-hmm. waroo commencé alors Binet gis ngeen li man mii bëgg naa rêver insha allahu rabi ah, am li alors <laughs> DJ ça vous fait quoi gis yaa ngi nekk sénégalais mais fii drapeau américain moo fi nekk alors ni sargal lu mel nii mu nekk mbégte rek comme niñ ko bindee ñoom prix de réussite. tey nit bu nekkee ci liggéey nekk ci carrière di ko def ni mu waree. bu demee tey ba am ñu nekk bitim réew di ko sargal. pour man loolu liggéey la rek parce que biñ ci dugg xëy na xaaruñ ci woon sax lii. dañoo dugg ci métier bi wala boog dugg ci li nga xamante moom moo di wàllu média. Mhm. pour déjà exprimer sunu ay passion maanaam exprimer li nekk sunu xol. mais bu ñu demee tey ba après vingt ans après. ñu defal lu mel nii man fierté la ci man et puis voilà je di dis quand même je suis fier de mois loolu laa mën a wax ci ci prix bi mooy li ma doon liggéey diggante deux mille 2004 ba tey. tey bu ma jotee lii tey fierté la te fi ma ko jotee du sama réew. voilà donc loolu moo tax tey mu gën a mu gën a mu gën neex ci xol. parce que xëy bu doon sa réew la sax ñu ne. xëy na dañ ko lijjanti. da nga ko lijjanti ba gars yi jox la ko. mais dama toog rek un bon jour ñu ma vidéo bi ne ma defal nañ la fi benn prix boo xamante ne yaa ko moom normalement da nga war a Amérique sax pour jël si ko. Mhm. mais comme da nga nekk ci événement nañ bàyyi ba après événement bi. bu ko defee ñu invité la fii nga ñëw ñu feete ko biir Amérique mais man dinañ la ko indil Sénégal comme ça nga wan ko sa sawaa dëkk. mu nekk lu ma neex di ci remercier aussi ñi nga xam ñoo ma ko jox. mi association sénégalaise ak gambienne bu nekk euh, Amérique. rawatina foofu ci Atlanta. donc fierté la et puis di ko déjee tout la presse sénégalaise. fi ma jaar ba fi ma agsi tey diggante Jàppo FM bu Parcelles seni ba tey GTV bu nekk. Mm-hmm. donc maa ngi koy déjee euh, presse sénégalaise bi yëpp. en particulier feu Edouard Adama Ndiaye bi nga xamante ne tey mhm. en 2004 la ma fekk rajo Jàppo FM le 26 septembre 2004 mhm. yóbbu ma Walf le 15 septembre 2005 mhm. ne ma bés dina ñëw animation Sénégal dina ci dégg fu sore sore sore te sa loxo lay mujjee. te pourtant fu mu toll nii yaa ngi dund yaa ngi yaa ngi dund moment yooyu la fu mu toll nii. waaw euh, pour man sax des na. parce que man jàpp naa ne. Euh, def naa ci média loo xamante ne war naa ci mën a am lu kawe sama njort. te li nga xamante ne déjà jot naa ko ci ay sargal yëpp bitim réew la jóge benn bu njëkk mooy Gambie. il y a deux ans ci ginnaaw fa lañ ma invité woon sargal ma tuddee ma drapeau. beneen bi mooy bii nga xamante ne Amérique la jóge te comme li ko Griff waxee rek ñu bëri ñëw nañu Amérique amuñu bu mel nii. parce que bii euh, trop li ci nekk ci dafa symbolique. mooy que aigle bi ak drapeau bi. Mhm. donc bokk na ci li nga xamante ne kuñ ko jox biir Amérique rek mooy am na fu ñu la teg te aussi am na benn cër bu ñu la jox mhm. parce que américain duñ caaxaanee seen aigle bii nii mhm. moo nekk seen seen drapeau moo nekk aussi ci seen tenue armée armée bi donc bu ñu la ko joxee rek mooy rafetlu nañ sa liggéey mhm. te xam nga ñoom amuñu caaxaan waaw doo jël seen yëf di ko fooyee mhm. jamais de la <laughs> donc mu ngi noonu moo tax mu ngi noonu prix de la réussite présenté mhm. à DJ Yves félicitations pour le travail exceptionnel que vous faites de votre émission Guddi gi toute la diaspora plus particulièrement l'association gambienne et sénégalaise vivant en Amérique te félicite et t'encourage à continuer sur cette lancé. oui waaye tamit sas na la. waaw sas la sas la ñoom déjà ñoom xam nañ ne ki ñu ko jox sax ku am jom la ba pare. Mhm. mais dañ lay gën a yokk nga gën a développer li nga xamante ne moom mooy li ngay def. Mhm. li ko waral mooy nee nañ ma ñun dañuy seetaan émission yi nekk Sénégal yëpp. mais gis nañu diggante deux mille vingt ba deux mille vingt quatre. musuñu mhm. la gis nga def luñ ne waroo koon def ci sa émission. mu ne ma loolu bokk na ci li tax. ñu réunir ñun suñu biir ne nañ lay sargal sargal sa émission. Mm-hmm. def ko aussi si Fadel Dakar Buzz ku ko xam aussi. Mm-hmm. xam ne mu ngi def liggéey bu exceptionnel. Fadel pour man li muy def sama defuma ko. Mm-hmm. parce que tey ku fekk ay nit di leen taxaw di leen dimbali ci sa médium bi ngay demee yow. foo fekk nit ku am jafe-jafe nga fexe ba jafe-jafe bi tàqalikook yow donc loolu pour man loolu sax moo doole sax ñu li ji def à la télé donte ñu ngi def lu rafet donc man bu ma demee ba tey ñoom ñu wax ma ne sa liggéey rafet na mooy man war naa xoolaat encore une fois fa laay teg sama tànk ak fi ma bëgg jëmee sama liggéey donc sas la sas bu bu rëy la sax sas bu rëy la vraiment te maa ngi ci bàyyi xel bu baax a baax sas na dafa bëri parce que yaa toll ne boo ko tolloo si métier mhm. gën a bëri on va parler de ça waaye tamit dañ si ñëwaat si wàllu animation lépp dañ si waxtaanaa si biir émission bi mhm. waaye tey tamit beneen casquette bi nga xam ne ni indi nga mhm. ko tey jii mooy en tant que chargé de com mhm. de Subatel label Subatel musique alors sa lan moo tax pour yow ñu choisir la def la chargé de com ba tey mooy li indi lii rek mooy di liggéey liggéey bu rafet nit ku ku toll ni Matar Diop Subatel ñu xam liggéey bu mu liggéey fii ci ci réew mi liggéey ko ci wàllu culture liggéey ko ci wàllu musique en particulier mu nekk koo xamante ne il est parti de rien ba toll fu mu tollu tey Matar dafa mës a bëgg li muy def mu ngi tàmbalee ci cybercafé jamonoy cybercafé nga xamante ne ngay ñëw fay cent cinquante wala deux cent ñu jaay la connexion cent euh, trente minutes nga dugg connecté wu bu jeexee nga dem mu koy gere donc ku tàmbalee foofu tey dem ba teg label bu toll ni Subatel musique Subatel entertainment nekk ci yoonu ubbi télé Subatel TV. Mhm. nekk ci yoonu ubbi rajo aussi. Mhm. kooku wax dëgg yàlla jàmbaar nga. mu nekk koo xamante ne ku mës a gëm boppam la aussi. Mhm. dafay gis sama bopp ci man maanaam day gis boppam ci man. parce que dañu xaw a bokk tuuti jaar jaar man ak moom man aussi je suis parti de rien. nekk juddoo Colobane màggee fa jàng. Euh, après nga bàyyi jàng à l'âge de 14 ans sa pap gaañu sa yaay gaañu nga dëgg ci métier def menuiserie def vulcanisateur def mécanicien def euh, voilà mécanicien mécanique générale def auto moto. ak yeneen yoo xamante ne xëy na mun naa ko fàtte waaw nga jaar foofu yëpp après tey nga dem ba toog ci média nit ñi di la déglu di jàpp li ngay wax di bàyyi xel say wax ba koy jëriñoo donc tey loolu mooy self made man moo tax man damay wax ne man je suis un self made man nekk aussi autodidacte parce que tey xëy na sama jàng soriwul jëlee nii <laughs> l'entrée en sixième nii le certificat mais tey fexe naa ba forger sama bopp ba jàngal sama bopp école de la rue mhm. fexe ba man li ma bëgg man ma am ko def ko ci man donc tey boo demee tey ba ba ba toog ci rajo mhm. bu toll ni Walfadjri ñu jël la gëm la dénk la émission bi gënoon rëy actuellement wala boo ko auparavant ci ci ci Sénégal muy sàpp dëggin ma am vingt ans vingt et un di ko gérer su ma naan animé sax ba génn bu ma nit di seet boobu parce que fee ñu ma télé damay ñëw ñu ne ma ki yow lay seet man la nanga def ça va ñu ne ma yaa doon animé man leen waaw ñoom yow mii yow mii yow mii ma ne waaw man ma <laughs> animé parce que boobu sama baat bi moo réyoon <laughs> par rapport ak sama âge ak sama jëmm mm-hmm. donc voilà mu nekk loo xamante ne bu ñu dajalee loolu yëpp tey mooy dellu soit ci li nga wax mooy nit ci lépp loo nekk danga ko gëm mataar gëm boppam di liggéey après jaar joolool yi yor fa nekk seen seen seen responsable côté promotion artistes yi di la gérer artistes yi ba xëy tey taxawal label bu mel ni suba teel te avant musique bi sax làmb la njëkkee tëgg na moom moo tëgg Bombardier Modou Lo kooku tey bu demee ba taxawal li tey man ma nekk xaritam démb balaa coow suba Subatel bi parce suba teel coow li yàggul mais mu nekk koo xamante ne ku ma yàgg gëm la man maanaam dama ko gëm. Mhm. moom mu gëm ma mu taxaw lu mel nii wow ma ne ma kaay dama ne ko man lii sama yëfal man may ñëw. parce que doo taxaw lu mel ne par ma toog croiser le bras mel ni ku gisul li nga def. te man ku ma xam-xam naa ne dama am dama am yéene ci ay nit. Mhm. ma am yéene boobu ci moom ma a ko léegi damay ñëw man nekk sa wet. Mhm. te xam naa li gën a li gën a ndaw ci li ma mën a dénk mooy communication léegi bàyyi ma gérer la communication bi fekk aussi Assane Lo liggéey ci communication bi mu ne ma yow ak dénk naa leen communication suba teel donc lépp lu koy doxal lépp lu ngeen war a wax lépp lu ngeen war bu leen ma tàggu parce que xam ngeen li ngeen di def mhm. donc loolu moo indi tey pas sama intégration parce que dama ne man ak suba teel démb la balaa tey mais ci label bii nii actuellement ni ñu doxalee nii mhm. donc tey moo indi nekk ci wetam actuellement nii mhm. alors ngeen dem si événement bi sànq sànq maa ko doon wax le 29 juin incha allah rabi foofu sa Zénith. Mhm. te mun nañu wax événement bu toll noonu. communication mun nañu wax à 80 pour cent. moo ko mhm. nar a doxal lépp lépp. donc il faut que nga def benn communication bi nga xam bu exceptionnel la pour mhm. Sénégalais yi wala ñu nekk extérieur mun a dem maanaam si loolu. alors si wàllu communication. fan ngeen toll fu mu toll nii. il euh, y a un mois ou deux mois ci ginnaaw communication bi xawoon na sooxe xawoon na taxaw tuuti. ku xool actuellement ni communication bi demee. ku ko yëgu woon yëg nga ko. parce que li waraloon communication bi xaw a sooxe mooy dañu nekkoon ci ay période yu xaw a difficile bi ci Sénégal mhm. mooy coow fi amoon en juin mhm. après coow li campagne après campagne élection après élection fet mhm. donc yooyu loo fa mënoon communiquer aussi kenn du la bàyyi xel parce que fu Ousmane Sonko di waxee wala fu Diomaye di waxee wala fu Amadou Ba di waxee boo fa dugalee ay zénith kenn du la déglu parce que Sénégal ñoo soxloon xëy na benn changement bi changement ma amee nag ba dëkk bi dal ba dëkk communication une semaine ñëpp xam nañ ne Euh, événement am na le 29 juin. Mm-hmm. Europe aussi ñoom léegi ñu ngi commencé di yëg na wax dëgg yàlla événement am na le 29 juin. Mm-hmm. parce que am na ñu fa nekk déjà benn équipe boo xamante ne jiitu nañu commencé nañ def liggéey bi sii di dem na démb euh, Allemagne dafay jar Bruxelles bu fa jógee dem Paris aussi. Mm-hmm. Saafonteeg ñi nga xamante ne ñoo di soppeem mi ak waa Zénith. am na aussi beneen équipe boo xamante ne semaine bii nii ci côté communication équipe bu presse. ñoom dinañ dem semaine bii commencé def aussi tapage. donc communication fu mu nii. wax dëgg yàlla gis nañ ne nit ñi xam nañ ne Zénith am na. Zénith am na forcément. parce que da ngeen ciblé ay nit ñu am importance. waaye tamit comme ni koy waxee si milieu showbiz ngeen nekk. Mhm. il faut que tamit ngeen def lu wàllu showbiz. ñu gis benn méthode bi nga xamee ne nii mhm. euh, jël ngeen ko wala sax yow jël nga ko laa mën a wax mhm. yow ak ki nga xam ne mooy Assane parce que yéen yore wàllu communication bi. bu baaxee yéen la. bu amee safaan tamit yéen la. mais heureusement que mu daal di baax. ngeen dem xool jiitu nga xam ne nii mooy Pape Diouf leader de la génération consciente. Mm-hmm. maanaam tur tur day wuy boromam. bien sûr heureusement mu naan di génération consciente. mu jox lañ xel bu am solo. Mm-hmm. ngeen dem seeti kii di Wally Balago Seck. Mm-hmm. alors foofu mun nañu waxee ne ni fa la lépp tàkkee. fa la lépp jollee. ñëpp daal di xam lii de 29 juin. si Diop mooy xewle. est-ce que euh, tey ji bu démb doon tey. da ngeen jël forme de communication boobu la. parce que ñu bëri yaa ngi wax sànq say biir wax ne. Mhm. au début jàppoon ngeen ni communication bu sonn amul woon. Mhm. est-ce que Wally Ballago Seck ak Pape Diouf jàpp ngeen ni. Mhm. moo nekkoon meilleure façon pour ngeen communiquer si pour mu jàll. waaw foofu la lépp tàmbalee il faut le dire et il faut l'avouer Pape Diouf ku ko xam-xam ne kilifa la. te mag day topp rakk. te rakk respecté mag maanaam li boo ko waxee mooy mag day xam ne kii maa ko mag mu woo ko wan ko ne maa la mag. mooy topp bi. mais rakk aussi dafay jox cër mag war na kii sama mag la mu topp ko def ko magam. Mhm. bi bu defee euh, bi ñu defee pare yi. Mhm. dañu ne Pape Diouf mënul bañ a moom wax ci événement bi pare teg ko ci yoon parce que Pape moo ñu moo leen njëkk Zénith ñoom ñëpp. Mhm. Pape moo njëkk dem Zénith après Pape Wally après Wally ainsi de suite ay Baba Maal après Viviane ak yooyu Pape bi ñu demee toog daf leen ne euh, yéen. ku ngeen mën a seeti seeti leen ko maanaam ku ngeen mën a seeti seeti la waxul seeti leen ñëpp mhm. mais dafa ku ngeen mën a seeti seeti leen ko loolu mooy ci sa temps il faut nga xaj-xajal ci yéen nit yoo xamante ne ñii mënul ñàkk nga seeti leen mhm. ci leen gis nañu yéen a ngi dem fii yéen a ngi def lii yéen ngi def lii mais seetil ñëpp ba mu ba sax waal yi dama nga seeti ko mhm. boobu c'était prévu c'est-à-dire Pape dafa ci xolam bu rafet la waxee rek mais tey mënoo woon def euh, événement Sidy Diop war dem Zénith dem ci Wally Seck ne ko dama bëgg nga ñaanal ma parce que yaay sama mag. te yaa ma fa jiitu te boo boo ma waxee fi ma war a teg sama tànk su ma fa jaaree xëy na yàlla mën na def sutura. Mhm. donc déclic bi foofu la jógee quand même parce que Pape moo ci communiqué. Mhm. gën a ñaax Sidi Sidi ne ko du ma sax xaar. Mhm. dama naroon xaar peut-être après tel jour parce que am na lu ma waroon eggali album bi mais suba suba su ma xëyee fa laa jëm. gis nañu après bi mu fa demee aussi Wally def li mu waroon def ci diggante mag ak rak mooy wan ko ne sama rak nga mhm. dama lay recevoir alors foofu yëpp fi ñëw mais mhm. da ko war wax da nga ne woon sànq sa biir wax ne c'était prévu mhm. est-ce que c'était prévu wala maanaam sénégalais yi si boppam ñu leen poussé ngeen dem envers Wally Ballago Seck parce que dañu gis au début si affiche yi nga xam ne parents yi ñoo ngi si woon Wally Ballago Seck bokk si woon donc est-ce que du sénégalais ñoo leen poussé ngeen def communication boobu leen non non non ku xam ñu actuellement ñu wër si bu doon Sidi kese la sax ñu ne xëy na sénégalais ñoo ko influencé mais ñi wër Sidi Sidi Diop quand même am nañu expérience boo xamante ne euh, bu ñuy liggéey du sénégalais yi moo ñoo leen di orienté fi ñu war a dem mhm. c'est-à-dire Wally euh, affiche yi mhm. dañ ko ci waroon def cest à diir bokkoon na ci ñu waroon bokk ci affice yi mhm. parce que quand même mënoo jël Sidiki Diabaté def ko ci affiche di bàyyi Wally Seck loolu dafa sax dëng mais si waa waa si Sidiki Diabaté ak Sidy Diop amuñu concurrence du ay concurrent mais Wally Ballago Seck ak Sidy Diop ay concurrent lañu. non par par par respect ci côté boobu maanaam diggante nawle artiste munoo jéggi ki nga bokkal dëkk. Mhm. dañu jël keneen di ko def ci affiche boo xamante ne ki nga bokkal dëkk nekku fa maintenant li indi tey affiche boobu génn. Mhm. bi ñu prévoir pour dem yóbbul Wally lettre d'invitation yëgal ko Zénith bi ci la moom i gaañoo bi moom i gaañoo ñu tegaat ci 4 mois ki ne Diouf jaaga gaañ cest à ci diggante boobu noonu. Mhm. mu woon dem ci diggante bi di ko wax ay. ay dama la bëgg a parrainer que ni ku nekk ci naqar ku xam Waly Seck. Mhm. dëju moom yi boo ko xoolee ni mu mel jour boobu ko kenn du ko fekk ci ci ci moment yooyu di ko wax ay. kaay ma yëgal la mu bëgg nga ñëw foo xamante ne ñuy dem di kontaan di bëgg. bien te daal day mel ni sax yow respecté woo ko. Mhm. après joxoo cër mémoire ki nga xamante ne moom mooy sërëm bi. ci diggante boobu ki tëdd na feebar. waal di jaabante day ñëw tëgg samedi dimanche lundi mu jël vol dem Paris assister yaayam vendredi mu ñibbisi tëgg samedi dimanche lundi mu jëlaat vol dem assister yaayam kooku mënoo ko woon dem di ko yóbbul naan ko ay kaay a pare ne la ñu teg ci 4 mois bi ñu naan léegi nag xëy na affaire bi xaw na dal xaar ñu dem yóbbul ko lettre am mhm. yaayam gaañu te ci diggante boobu noonu il fallait affiche génn date bi génn na il fallait affiche génn ñu ne bon léegi nañ defar affiche bi nga xamante ne euh, Sidiki Youssou Ndour Pape Diouf ak Viviane ñu sànni ko en attendant Wally ci maanaam di dellu siwaat nekkaat fi mu war a nekk ñu doo ko defar affiche officielle am moom ok donc loolu moo indi li nga xamante moom mooy yéex a dem ci Wally ba pare mhm. ak aussi affice bi aussi nekku ci woon mais c'était prévu que Wally Forum bokk ci affiche bi mhm. parce que génération bi mujjee waa yëpp chaque jour moo Wally lañ jël def ko seen référence bëgg fi mu àgg ñu àgg fa bëgg li mu am ñu am ko parce que quand même dafa ñëw moom tamit fekk Pape Diouf del Pape Diouf def ko référence ne ko yaay sama idole ni si def Wally noonu la Pape Diouf defoon noonu la Wally defoon Pape Diouf sama kanam dara <laughs> lépp ko fekkee mhm. Pape yaay sama idole maanaam bàyyi fi coon mhm. bàyyi fi yuusu bàyyi fi ñëpp dem na Pape Diouf yaay sama idole mhm. ne ko su ma nekkee sama oto yow rek laay déglu donc loolu loolu mu nekk lu rëy ci Pape Diouf Pape Diouf aussi def ko rakkam malgré après am na détails yu am diggante fans ak yooyu noonu. Mhm. mais pour man c'est pas le plus important le plus important mooy. Mhm. musique sénégalaise dafa soxla Wally Seck. Mhm. dafa soxla Sidi Diop. dafa soxla Pape Diouf dafa soxla Momo dafa soxla El Hadj Keita dafa soxla Tarba dafa soxla Demba Guissé ainsi de suite ainsi de suite donc ñoom lu ñu mën a def ba gën a booloo. ba fexe seen musique bi ñu def non seulement ñoom ñu ciy gis seen bopp. mais aussi ñi leen bëgg di ci gis seen bopp loolu moo ëpp solo donc loolu moo tax affaire bi yéexoon ba après bi nga xamante ne wax dëgg yàlla commencé nañ def tournée parce que mënoo woon jéggi Pape Diouf ah. di dem ci Waly mm-hmm. bien sûr mënoo woon jéggi Pape dem ci Waly mm-hmm. donc moo tax ñu tàmbalee ko ci Pape Diouf après jàll ci Waly mm-hmm. alors est-ce que Sénégal yi bëri posé wu la question est-ce que c'est sincère maanaam fu mu toll nii comme jubóo lañ koy wax moo tuddee euh, comme ni gars wax waaye mais c'est juste que Sénégal yi jubóo lañ koy jubóo lañuy mhm. ak Sidy Diop fu mu toll nii jubóo nañ continuer nañu continuer à vie mhm. période bi nga xamee Sidy Diop mhm. soxla na lépp li nga xamee nii mooy wàllu communication Zénith bi moo tax mu dem si Wally Ballago Seck bon man li ma mën a wax mooy xam nga tey man nekkuma toog ci xolu Wally Seck tooguma ci xolu Sidy Diop pour gëm wax dëgg yàlla ne lii ñu wax nii lu sincère la ci moom mais li ma gis man mooy jàpp naa lu sincère la. mais en tant que si wàllu ci ni ñu ñu ni ñu waxee parce que Wally bi muy wax boo xoolee am na benn geste bu mu def xëy na sénégalais mënuñu comprendre loolu. Mhm. bi ko xaar ma summi samay verre xool xam nga loolu man ci li ma jàpp. Mhm. ci ko xam communication. Mhm. mooy li ma lay wax nii lu sincère la ci man xaaral ma xool la nga xool ma. nga xam ne li ma lay lu sincère la ci man. yow sama rakk nga yow nii yow nii wax ko li mu koy wax si di summi veer yi aussi jàkkaarloo moom xool ko nga xam ne fii am na benn mbégte bu dugg ci seen diggante ñoom ñaar. Mhm. maanaam lu ñu nammaloo ñoom ñaar ñëpp. Mhm. parce que quand bu ñu ko néewoon nii pour man amul sens di moytonte waa li jaar ne. kii jaar ne fan si di ci rey seen bopp. ku nekk xam nga pour man. amul sens quoi. non d'une part amul sens. amul sens c'est-à-dire amul sens sax lu ci ci luy doxal musique sénégalaise. d'une non parce que parce que tey jii bu ñu xoolee maanaam ñoom ñaar seen euh, xaajaloo mhm. bi. moo tax si Diop agsi fii. Mhm. ba maanaam si génération mu njëkk si dem Zénith. Mhm. parce que dafa tàmm Wally Ballago Seck fu mu teg tànkam mu teg fa tànkam. Mhm. di concurrencer moom à 100 pour cent. ñeneen ñëpp yeneen artistes njëkk wax mooy dem si soirée Wally Seck ne ko yaay sunu papa. kilifa yaay sunu kilifa jiite leen la ñoo ngi si ginnaaw moo tax chaque fois si ginnaaw Wally Seck la ñuy nekk. contrairement ak Sidi Diop. fu mu teg tànkam dafay teg tànkam. donc loolu moo tax mu daal di teg Zénith est-ce que forme de euh, bataille boobu noonu je ne vais pas utiliser beneen mot. si wàllu musique. moo tax Sidy Diop agsi fii donc est-ce que bu ko bàyyee changé ko est-ce que du wàññi dara ci plan de carrière bi nga xam ne nii dina am après le 29 juin. Mhm. Sidy jàmbaar la parce que tey jàmbaar mooy fekk fu ay magam nekk. Mhm. mu fexe ba bokk ci âge am ci bi muy njëkk a génne single fekk fi ay morom waykatam. Mhm. bi muy ñëw fekk def ay waykat yu bëree bëri bëri. waykat yu bëri yu ko njëkk a génne album njëkk ko def grand théâtre ak yëpp. mu ñëw wax dëgg yàlla fexe ba bokk ci yi nga xamante ne wala bu ñu tudd tey cinq artistes fi Sénégal faw mu bokk ci. Mhm. loolu li ko ko may benn mooy talent. Mhm. ak aussi bëgg li muy def. ak aussi am fit parce que waa li ko may tey mu àgg fi tey fit moo ko fi yóbbu ndax fekk na fi ay papaam ak ay ndijaayam ay magam. fexe ba bokk. Mhm. donc tey mais ça ne veut pas dañu war a guerre parce que liñ li ñu doon def noonu du woon diggante Sidy ak Wally fan yi la. donc fan si saa saa yu leen neexee mën nañu ko créé waat ñoom. non du fan si. la. <laughs> Sir Diop moo doon wax naa du ma lekk ceebu jaaga loolu du fan <laughs> loolu loolu loolu fan si benn fan si wax ko moo toog ne leen man maay seen baay. Uh-huh. donc loolu Sir Diop loolu loolu si. donc ñoom ñaar la woon loolu ego trip la rek. comme comme rapport moo tax ma ne man fan si mais la woon. te am na am na lu si diggéen ne nii. ci album bi boo ko déggee pour mën na jëlaat beneen polémique du ma ko wax mais ego trip ci ay way la c'est-à-dire waykat mooy toog yëg boppam dafay ego trip te loolu li ko indi woon bokkoon na ci li nga xamante ne tey euh, Wally dafa dafa dafa génne Sidy génne après ñoom ñaar ñu waxante bokk na tey ci jamono boobu noonu. li nga xamante ne tax na ñoom ba kuy tëgg soir soir day fees. voilà mais loolu ça ne veut pas dire que ay ennemis la ñu. Mm-hmm. wala dañu war a saagante wala dañu war a xeex. Mm-hmm. dafa mel ni comme làmb ji rek mbëri face to face. bu ñuy waxantee ba pare nga naan ñi ñoo gën a bañante ci àdduna mhm. mais bu làmb jeexee gis nga leen comportement bi ñu am lay bokkaat nday bokkaat bàyyi donc tey ñoom mun nañ def lii tey mhm. mais teewul ku dugg sa studio après ba tëju mhm. bu la neexee nga toj dëkk bi waaye li nga bëgg a way loolu kese la koro ma ne ko peut wa maanaam waat di Euh, attaqué waat ki nga xam ne nii moom mooy Wally Ballago Seck mhm. parce que loolu dafa bokk maanaam si stratégie am si wàllu musique mhm. est que d'accord nga man ou pas non non je ne suis pas d'accord parce que xam nga attaqué pour man <laughs> mhm. musicalement comme li indi woon coow li ko li ngay wax du ma lekk euh, ceebu voilà yàlla na ko yàlla yërëm sunu yaay euh, musicalement booy concurrence da ngay concurrence ci sa musique nga gis nit ki génnee yu yu Youssou Youssou da daan génnee tey lundi pen génnee mardi wala pen génnee mardi Youssou génne lundi. lan lañ doon xam ba ba ku nekk xam sa morom ban jour lay génne. parce mhm. que dañ doon déggoo di waxtaan. kii xam ne maa ngi studio mu ne ko su ma génnee mardi wala soo génnee di ma génne mercredi wala su ma génnee lundi bu la neexee génneel. Mhm. après show am concert yi commencé soirée yi di jàkk tàkkarnaase mais bu guddee. Mhm. Youssou mun na taal otoom ndànk dem toog kër Omar waxtaan fa naan fa ataaya. xëy na génération bi loolu la ñu dañ jàpp ne pour ñu nekk ay adversaire ci wàllu musique foog ñuy waxante yenn wax yi te du ma la jege doo ma jege wala bu ñu dajee ci mbooloo sax da taxawee ne ma taxawee ne. kii ànd ak groupe am kii ànd ak mën ngeen mën ngeen mën ngeen concurrence. ngeen xeex ci musique sama musique ma way loo xamante ne xam naa lii munoo ko way. wala ñu daje kaw seen nga jël micro ma jël micro ma way loo xamante ne doo ko way. mu yam fa mais li ci topp. bi nga xamante ne après tax na ba ay nit ñu bëri jàppandi ci am ci problème kii toog def vidéo wax lu ñaaw c'est-à-dire après man man fan si comportement bi ñu ci am après nga def vidéo yow toog tim artiste bi c'est-à-dire mën nga wax beneen mën nga jàkkaarloo sa fan sa artiste bi wax ko li ko bëgg wax mais pas nga jël kàddu ñaar di ko teg ci artist bi c'est pas normal loolu parce que musique jaru ko musique jaru ko mhm. tey boo xoolee génération Youssou Ndour ak ñu Omar Pène mais boo leen fekkee ñu toog da xam ne ñii ku ne danga am cër ci sa morom. Mhm. ku ne da jox cër sa morom donc pour man il faut ñu teg ko ci cadre musique concurrence bi na seen. Mhm. mais pas mu dem ci ay dérives yoo xamante ne après diggante fans ak fans lay nekk nit taf photo nit saaga artiste bi mhm. ndax diw am na des fois am na ku ma ko wax temps yii passé ci ci kenn ci chroniqueurs yi. dama ko dama gis mu wax benn wax am fu mu fu wax ji jëm quoi. ma kii xëy na ñeme naa ko mun naa koo jox ko ay conseils. ma wax ko ko mu ne ma li mu wax dëgg la nag wax dëgg yàlla dëgg la. mu ne parce que li may def nii man maay jël maa moom sama téléphone maay jënd sama connexion. man maay wax ñoom ñoo ciy jëriñu man jëriñuñ ma dara ñu ma salaire après man ma war ci ñaaw après sama diggante yeneen artistes yi mu a ma wax nga dëgg na xaaral ma yemale ñëpp après ci même semaine boobu ci laa wax mu ñëw soirée Sidi ñoo def liggéey xëy na vidéo def chronique man a koy da nga ne chroniqueur nga. Mm-hmm. yow bul ne chroniqueur benn artiste. benn soit nga ne man influenceur tel artiste la mm-hmm. ñu xam ne artiste bi ci moom rek ngay wax. Mm-hmm. mais boo nee chroniqueur da nga war a def li nga xamante ne moom mooy partialité mooy su ma waxee ci kii naa wax ci kii te li nga war a wax dafa war a positif parce que ci musique ngay wax. yow doo activiste defoo politique musique ngay wax musique boo ci wax dafa war a ci ki koy ki koy déglu yaa war a dimbali tey. bu xamul dara ci musique artiste bi nga ne ko artiste bi li tax mu def lii musique bi fii la ko defee nii la ko defee la moo tax bi demee nii nii la demee nga dimbali leen comme ñun niñ koy defee ci rajo wala ci télé. Mhm. mais pas nga toog tey naan waaw gis nañ ne diw def na lii moo tax mu def lii nii. Mhm. ma ne ko yaa ngi utal sa bopp ay noonu te nga artistes yi nii ñoom ñëpp a yam. ñoom ñëpp a yam ma ne ko maa la jiitu ci média maa la jiitu ci milieu bi. Mhm. lépp loo ci wax na nga fexe sàmm sa digganteeg yeneen artistes yi même bu fekkee am nga ci xarit. Mhm. na nga fexe bu looy wax na ko xam parce que suba da nga rajo beneen artiste bi. Mhm. boobaa doo ko mën a xool. est-ce que jubóo bi da leen permettre encore une fois. Mhm. ngeen nekk ci ginnaaw Wally Balago Seck maanaam ñëpp xam ne ñuy wax mooy Wally Seck moo nekk number one moom sax moo ko waxal boppam. nee na musique Sénégal mooy number one. ñu jàpp ne Sidi mooy deuxième moo nekk deuxième en deuxième temps yi deux trois mois wala deux mois ci ginnaaw. Mhm. dafa xawoon perdre maanaam deuxième place boobule. Momo mhm. Dieng dafa ñëwoon euh, carrément si si ginnaawam. Mhm. est-ce que jubóo ak waale bi tamit de permettre ngeen reprendre encore seen place. man par rapport ak concurrence wàllu musique. je veux dire avec Momo man li ma li wax mooy fan la ñuy bàyyi Youssou Ndour. non beneen level la <laughs> su may wax génération moo tax. c'est impossible de comparer Youssou Ndour à balaa Ballago Seck. d'accord xam nga léegi musique sénégal sénégalaise numéro un numéro deux. amul. te pourtant Waly Ner mooy numéro un. non musique sénégalaise amul numéro deux amul numéro un amul numéro dix musique sénégalaise ku nekk da ngay def sa musique ku nekk ñi lay bëggee di la bëggee ku nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy jënd sa album di ko jënd ku nekk ñi dem sa soirée ñi ñooy dem sa soirée tey Waly Seck bu bu tëggulee tey am na ñu bëri ñoom dañuy dem Baali Sidi Diop te dañoo bokk ay fans. Mm-hmm. fan sa ndongoloo démb yi. ñooy fan sa Pape Diouf tey. mais mais DJ yow yow DJ nga xam nga musique bu baax. Mhm. kenn amul dara lay jàngal si wàllu musique. Mhm. mais xam nga bu baax ne dina am ay période yoo xam ne kii mooy nekk numéro un. Mhm. waxoon nga ko démb. ay Mende ay temps moo fa tegoon tànk Youssou Ndour moo tegoon tànk mais mun na jàpp ne mu laal daal santé que Wally Ballago moo nekk numéro one. Wally Seck moom mooy seen référence chaque jour ma xoo. c'est-à-dire xale yëpp dañ bëgg mel ni moom. parce que moo leen jiit ci musique bi def fi loo xamante ne kenn defu ko ci ñoom ci génération ba léegi defaguñ ko parce que tey ku ñëw ci musique en 2007. 2009 nga génne album 2012 nga génne waat 2015 nga génne waat 2014 nga dem Zénith 2016 nga dem Bercy 2017 nga dem Doc Pullman après def Dôme de Paris wër yenn saal yi. Mhm. tey kooku dafa am respect ci musique te am na loo xamante ne wax dëgg yàlla cëram la ci musique dañ ko koy jox mais encore une fois. Mhm. man li ma xam man ci musique yàgg ci bu ñu demee tey ba war a nommer nit Tekno yaay numéro un wala yaay numéro deux yaay numéro trois. ci ay trophée lañ koy teg yoo xamante ne c'est certifié Youssou Ndour tey. ñëpp nangul nañ ko. waaw c'est-à-dire man ci côté trophée laay wax. fans nag bu la neexee ñu jël seen at def ne Wally mooy un Sidi mooy un wala Sidi mooy euh, deux Wally mooy deux. mais dama ne képp ku ñu wax tey musique sénégalaise numéro un ci musique sénégalaise tey dañ koy teg ci ay trophées yoo xamante ne musique moo la ko jox c'est-à-dire de disque d'or à Grammy de Grammy à ainsi de suite à platine ak yooyu noonu donc tey Youssou Ndour il a sept disques moo tax tey bëgguma ñu wax numéro un ci musique moo tax ko war ma naan fooy bàyyi Youssou Ndour après ñu doo ko wax leneen ak leneen parce que tey li mu am ci ay trophées tey yu ko musique delloo tey mm-hmm. boo demee tey ci yenn yi tey ni mu fa mel. amul artiste bu ko mel noonu au Sénégal. c'est impossible bah je dirais pas que c'est impossible mais donc lan moo ko ko may mooy liggéey. Mhm. fexe li muy liggéey mu xam fan la ko jëmale. li muy def mu xam fan la war a ak moom ba tey Youssou Ndour mu ngi def li nga xamante ne moom mooy comme li xale di def. Mhm. par gën leen ko dàq. yéeg ci kaw seen zéro heure tëgg ba quatre heures du matin jouer le trente morceaux. Mhm. ban xale koy def donc moo tax man bugguma ñu wax ay numéro un cest à man du man man en tant qu'animateur du sax respect tax ma toog tey ñuy wax numéro un ma toog noppi te war a wax ci Youssou Ndour cest à boobaa bu ñu ma seetaan dañu ma ne dañ may xeeb te waxoon naa ko yaa deux ans ma koy waxaat amul kenn koy wax fi musique sénégalaise di wax ay numéro un te Youssou Ndour nekk fi wala boog ñu ne dañuy seppi Youssou Ndour seppi Thione Seck seppi nangam seppi nangam seppi nangam après ñu bàyyi xale nañ jongante te mm-hmm. ku ci nekk tey bu fekkee ne nga trophée bu la musique jox mm-hmm. ñu ne yaay mais numéro un moom trophée lañ koy teg. alors mais du ci wax. alors mm-hmm. voilà ñu dugg biir maanaam Zénith. Mm-hmm. xam naa surprise yi dina bëri loolu. bien sûr euh, lan la ñu mën a xaar le 29 mm-hmm. juin. le 29 événement la boo xamante ne tey sénégalais ñëpp a ngi koy xaar. te actuellement nii ñu ngi ciy liggéey. te comme li boo amee sa stratégie booy defee sa communication doo mën a dévoiler yu baree bëree bari mais musique bi nga xamante ne Sidy war na ko fa tëgg. mooy album bu bees lay présenter Zénith. album bu bees bu bees tàq lay présenté Zénith. Euh, bëgguma avancer trop ci titres yi ñaata la ñu war a génne mais actuellement nii Sidy liggéey na vingt cinq titres yoo xamante liggéey na ko pare. waaw vingt cinq titres yoo xamante ne vingt cinq mu ngi studio ni liggéey na ko pare vingt cinq titres maintenant ñu ngi xool. ndax day génne vingt cinq yëpp. <laughs> ma jàpp si bu yeboo kon nga préparé xam ne nag. <laughs> ñu ngi xool ndax day génne vingt. ñu ngi xool ndax day génne dix huit ndax day génnee quinze ndax day génnee ainsi de suite ainsi de suite mais liggéey na loo xamante ne tey euh, Momo. Mhm. man li ma dégg en tant que animateur li ma dégg Sidi waay ko Sidi màgg na ci musique du Sidi bi ñuy bi ñu bi ñu doon dégg yaa trois ans ou quatre ans ci ginnaaw li ma dégg lu studio man. Mhm. Sidi màgg na ci musique te. di nga ci dégg ay thèmes yoo xamante ne da nga naan Sidy fan la xalaatee way yii nii ba war koo way te def na ci benn morceau boo xamante ne daf ci rendre hommage kenn koo xamante ne moom bés bu déggee morceau bi moom soo moytu dina jooy te ku màgg la ci wàllu musique te ku màgg la ci Sénégal ku màgg la ci wàllu musique te ku màgg la ci Sénégal màgg Sénégal waaw Baaba Maal Youssou Ndour en tout cas daal falaa mën a yem seen génération la wala génération bu mag ku màgg la daal waa nga waale nga waale màgg na ci musique ku màgg na ci musique sénégalaise waaw ah, mais bokk génération moo tax moo loolu <laughs> piège boobu laay may dugg en tout cas peut être euh, peut être doon maanaam euh, Youssou Ndour wala Baaba Maal euh, peut être je sais pas en tout cas am na loo xamante ne moom en tout cas daal wéy na neex moom way na loo xamante ne ku ko déglu di nga xam ne moom wéy na wéy bu neex di nga xam ne Sidi waay na est ce si biir mën nañu xaar ay son yu nga xam ne au niveau international parce que gis nañu mu def si son bi nga xam ne ni à chaque fois dama koy wax. Mhm. dama naan euh, Sénégal peut-être ñun ñoo xamagul musique. waaye sama goro. Mhm. Sénégal bu ñu ko xamoon dëgg-dëgg. wala ma jàpp ne bu fekkoon benn euh, Davido. wala benn Nigérien moo ko woy dinañ def le tour du monde. bien sûr est-ce que mën nañ xaar yeneen son yooyu noonu. si mhm. album bi de. bien sûr laisse parler bi déjà loolu la. te bokk sax ci album bi. mu defoon la nii rek. mais am beneen version boo xamante ne defaat na ko ci album bi te am na yeneen version yu mu def yoo xamante ne tey. arène bi ku ko déglu di nga xam ne kii il est polyvalent te mu ngi ci lance boo xamante ne bu ko yàlla dimbalee dëgg bàyyi kook sagom ak talent fi mu bëgg yóbbu musique mën na ko fa yóbbu ci album bii nii. Mm-hmm. moo dama la album bii bés bu génnee Sénégalais dinañ dinañ Sidy màgg na nag wax dëgg yàlla. du Sidy bi naan déglu du Sidy bi ñu déglu sax samedi bi passé nii beneen Sidy lu mu beneen Sidy dañ ko formaté waat. maturité bi nekk ci album bii nii waaw am na maturité quand même. du lépp lay wax kon peut-être nañu mais album bi avant. jeune bi lay ah, génn bien sûr peut-être mën jàpp fii ak fin de mois. incha allahu rabbi dina génn kay moom balaa ñuy dem Zénith mooy accompagner promotion Zénith bi. parce que il faut mu woyal leen lu bees tàq ci kaw seenu Zénith. mais live bi moom Zénith dañ koy jëlee. live waaw. waaw waaw. ah peut xaar. live bi da koy da koy da koy way ok déjà musiciens yi commencé nañu répéter album bi te album bi génnagul. maanaam dañuy anticiper. dañuy attendre du ñu xaar ba album bi génn ñu doog a répéter déjà musiciens ñoom ñu ngi répéter di relever album bi. Mhm. ñu war a jouer Zénith te album bi génnagul. incha en tout cas mu ngi noonu mbokk internet je vous promets que Sidy Diop va mettre l'ANA de Genève dans sa poche j'en suis sûr et alors euh, ba léegi mais ba léegi dañuy continuer dugg si xaw a beneen beneen kii xam nga affaire de cas neex il faut ma xaw a safal tuuti <laughs> donc c'est normal su ma demee xam naa gars yi ma tey lu xew <laughs> alors gis nañ fii sa mbokk animateurs yi mhm. temps yi ñoo ngi clashante clashante bu mekk parce mhm. que démb rek lañ jàkkaarloo ko yi di jëpp Padros mhm. moom moom nee na mooy bàyyi animateurs yi dégg wax si mais sa position ba léegi gis ko. sama position mooy trophée bi man je suis international xëccoo ma national mosuma dugg ci ay xëccoo national bi ñu ma ci dugalee tamit leen bokk ma ci génne leen ma ci je suis au di seetaan xëccoo ma un xëccoo ma deux parce que lii moo ko doon firndeel te lii xaw ma na sax day ñëw. Hmm. donc man animateur international la léegi bu ma kenn boole ci national bi. Ah, maa ngi au niveau international. attends attends attends attends kii fu mu toll nii DJ Yves dafa sous-estimé Abba fu mu toll nii DJ Yves dafa dafa dafa sous-estimé euh, ñoom Cheikh Sarr dafa donc mu toll nii Jamil da dégg saa bi wax di xasaa <laughs> saa waaye nee bokk si da nga ko si génnee moom boo bokk si si coowal xale yi. ñoom ñëpp ñu ngi def lu rafet wax dëgg yàlla. ñoom ñëpp c' est des grands animateurs. oui parce que yaa ngi si balcon bi toog di leen. man ci balcon bi laa nekk di xool di suivre rek waaw wax naa leen ko bi ñu ma leen non man je suis <laughs> man man naa ñëpp wax mais di li mu wax ni moom moo si gën a grave da leen susu suñu dégg ça moo ngi kii daal <laughs> moom mooy Ancelotti moo ngi toog di xool booy ni entraîné. je suis au balcon aigle bi drapeau Amérique. oui parce que je suis au balcon cinquante 52 états du noonu. du caaxaan comme ni ko Ousmane di waxee. <laughs> yow joxewu ñoo trophée Sénégal. sama mbot daa voyagé ñëw. sama mbot daa daa yéeg te ñoom amuñu benn trophée boo xam ne jóge na avion ñëw. sama mbot daal xam naa ne dañ ko dañ ko fret dañ ko fret yónnee ma ko. boole ko benn lettre am luñ ci bind lettre boobu moom jarul ma koy ma koy wax fii nii donc tey. nekkuma sax ci monde concurrent pour blague à part mhm. nekkuma ci monde concurrence parce que je me suis dit ku nekk wax dëgg yàlla ba nekk sa liggéey. Mhm. daa fa fa tolloo bàyyil nit ñi apprécier juger seen bopp. peut-être nag comme ni ma ko waxee rek dañ nekkoon ci benn one man show Cheikh yee affaire bi après xam nga Abba dafa neex. Mhm. te mën a tooñ Abba dugg ci après xam nga ñu tooñante après maa ngi ko dee si muy tooñ naan ma am na kenn ku ma dégg ma naan non non non xaw ma lan Euh, ku jël pe doo xëccoo deuse ah ko xam est-ce que borom a fi dinañ ko xam sama xarit la parce que après guddi gi déggoo nañu. waxtaan nañu Abba. Mhm. déggoo nañu par message. ma ne ko léegi yow sa événement bi ngay def le 19 defe naa Saint-Louis. saint léegi fay ñu maak Cheikh ñu présenté ko. <laughs> comme yow léegi événementiel ngay def. léegi fay ñu présenté la ko donc loolu li ko li koy wane mooy ku ne yaa ngi def liggéey bu rafet. Mhm. maintenant nit ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan ku ne xam nañu kan moo kan moo la bëgg kan mooy sa soppe. Mhm. voilà mais en tout cas. man moom bu kenn boole ci national bi. mais gis gis nañ sax DJ Pados moom tamit génn daal tontu ñoom ñëpp nee na wax jee fi ne rek mais yéen seen biir. bu ngeen tëddee xam ngeen ni moom moo leen mën <laughs> ma ko de DJ Pados yaa ko wax moo ko wax jee ne rek mais yéen bu ngeen tëddee. Euh. moom du seen morom. en tout cas daal. c'est la première fois au Sénégal depuis que l'animation est l'animation au Sénégal mm-hmm. animateur jot trophée bu jógee bitim réew bii c'est la première fois ku am ku am beneen aussi après bu nga ko génnee nga war ma ko. cinq cinquante deux états yi. bi nekk la première fois. fois. au Sénégal. waaw et c'est la première fois aussi au Sénégal un général des corps armés recevoir un animateur officiellement mu général Moussa Fall. après jox ma aussi trophée gendarmerie. c'est la première fois moo tax ma ne xëccoo ma. c'est la première fois aussi jël animateur yóbbu ko Gambie décorer ko tuddee ko fa drapeau animateur laa wax. waaw c'est la première fois te mosuma taxaw fëgg sama dënn parce que pour man loolu ay ay kii la rek ay ay sargal la rek jarul fëgg sa dënn ku nag boo toogee li ngay def mën nga ko am ñu lay bëggee mais jarul jarul jarul wax man maay lii maay lii maay lii. j'en suis sûr que euh, DJ Padros wala Abba wala Cheikh Saay dañ posé wala dañ ni question bi ñu posé ñoom dañ ko posé. Mhm. dañ di wax pourquoi duñ gis DJ Padros ci télé yu mag bi télé mag yi. pourquoi duñ ma gis télé yu mag. man ca lay magi laa njëkkee de bu dee sénégalais yi xëy na am ñu xamul sama parcours ma ñëwaat ci tuuti. Mm-hmm. rajo communautaire un an laa fa def dem wal fajiri un an laa def rajo communautaire. Mm-hmm. dem wal fajiri wal fa trois. maa démarré wal fa trois rajo musicale bi maa ko démarré. Mm-hmm. un après ma dugg wal fa man maa remplacé Edouard animateur bi gënoon mag Sénégal. période boobu doon def sàppa dégg émission bi gënoon ngar na Sénégal. Bubs moo ko njëkk Edouard def ko man maay le troisième animateur bu ko def ba ma fa jugee. Mhm. ci la caf ka sàpp dëggin dañ. ba tey amaatuñu Boubs amaatuñu mhm. Edouard amaatuñu Yves ba tey bu mhm. fekkee ñi xam rajo xam nañ li may wax ma jóge fa dem 2STV c'est-à-dire Walf TV après mu ma démarré aussi émission télé ma jóge Walf TV après dem euh, dem Canal Info mu nekkoon télé information bi gënoon mag Sénégal ñoom ñoo fi njëkk a def li France 24 doon def mooy l' information en continu. Mhm. ma dem fa di def émission culture bi foofu. ma jóge foofu dem 2STV. Mhm. nekk fa def fa li ma fay def après 2STV après RDV rajo yi ma jaar. Mhm. après RDV FM FM waa ak ba ba tey ba DTV après GTV. Mm donc mun naa ne télé yi ma deful TFM la Sen TV ak RTS mooy télévision nationale. TFM mhm. wowoon nañ ma. TFM wowoon nañ ma avant après avant Abba après bi Pape Cheikh quitté man la ñu woo. bu ba ah, Pape Cheikh. bi Pape Cheikh quitté. ok boobu Boubou Sangue fa woon boobu fa woon mais Pape man la ñu woo. mu am nu mu demee ma toog jàpp sama ñaambur. woo nañ ma. pourquoi demoo jaru ko parce que waaw lu yàgg la. affaire paase na wala salaire moo dul woon wala. non non non daa <laughs> ko wax ci télé. <laughs> pourquoi mu nga ko leeral. am invité bi dama peut être en tout cas daal dem naa def li may def. après moom nu mu fa demee man ñu woo ma ku fa nekk di fa liggéey woo ma ne ma lii ak lii ak lii moo tax fa laa mën a yem. maanaam liggéey beneen bi condition yi la bëggoon teg moo baaxul. non non non loolu du ma ko leeral. beneen bi mooy. Mhm. seen TV aussi woo nañ ma. biñ meew boobu Cheikh mu ngi foo nekkoon ci rajo bi. Euh, voilà mu ngi nekk nekkoon ci rajo bi biñ ma wooyee waxtaan nañu Clédor moo fa nekkoon frère Bougane. Mhm. moo nekkoon direction période boobu noonu. bi ñu waxtaanee ñu boole maag jigal chargé de production mu ngi seetaan. Mhm. jigal na ma li ñu soxla Bougane xam na ne mu ngi ci yow. dañu soxla un animateur charismatique. Mhm. bu dégg tubaab qui a une belle voix parce que li ñuy def émission bi c'est ak tubaab. mais après. condition yi après bon am na am na foo xam ne egg après eggu ñu fa. ma toog donc. <laughs> tey aw problème pour pour ah, pour di di di kon kon yow yow la neex nga bañ a liggéey si télé yu mag yi ça veut dire que ko expliquer yëpp ay conditions que ni ni TFM woo la nga ne non conditions yu baaxul. ni may waxee yow nii woo la nga ne avant GTV rek avant GTV rek beneen télé bu mag woon na ma avant ñuy avant ñuy dem transition GTV. Mhm. beneen télé bu mag woon ma. li ma bëgg wax foofu mooy la. man xam man xam di di nga teel condition yu leer wala maanaam moom. man xàmmeewu ma télé bu mag ak tele bu ndaw nga tele Sénégal bi nii. Mhm. suñ ma woon tey ma yëg ko yëg. Mhm. fii laa ñëw liggéey. yëg-yëg la rek. ba pare dafa am loo xamante ne aussi il faut nga xam sa bopp tamit. Mhm. man dafa nu may liggéeyee man sama liggéey dama dafa dafa soxla liberté. ok man. dama soxla liberté quoi ci li may def cest ma def ko ni mu ko yëgee. parce li may def xam naa ko mën naa ko te am naa ci expérience. patron bi toog fenn am waroo def lii wala waroo wax lii. bu ko mënoon moom moo ñëw toog di ko defal boppam. mais boo demee ba jël nit ñëw ne mhm. man kenn du ma tënk ci télé. Mhm. kenn du ma tënk ci plateau mën nga ma nag yokkal wala nga orienté ma ne ma ah est-ce que boo yokkoon lii. Mhm. wala boo ko defee woon nii mais waroo def lii man du nangu patron de presse bu ma parce que boo ma ko tegee je démissionne. Hmm. parce que quand même da ngaa bàyyi animateur yi ba ne ma kaay. Hmm. bu ma ñëwee ba ñu xool ma ma ñu xam ne kii li muy def da koo mën après nga bëgg a toogaat ma war a def dara nga ne ma noonu a def lii. Hmm. wala fii nga war a yem wala a def nangam man du ma séq ak loolu patron de presse wax dëgg yàlla bi may ñëw DTV dañuy toog réunion man Jupiter ak ñi fa toogoon ñëpp. ñu waxtaan ñu ne bon il faut ñu xool à part sa samedi show bi ban émission nga def quoi. li ma mun def bari na de maanaam li ma mën def bëri na de te su nekk sama xel mi bëri na sama bopp bi. maanaam am naa benn concept émission boo xamante ne mun naa ko def émission nocturne lay nekk. ñu ne ma lala ma leen guddi gi lay tudd. waaw ban heure ngay démarrer ma leen vingt trois heures jëm trois heures du matin am ñu fa toogoon di ma ree quoi nii da nga ñoo yab quoi kan ma lay seetaan heure boobu ma leen leen daal xam naa ko. man ko Jupiter mun naa mën a ko carte blanche laa soxla. moom xam na luy carte blanche. mooy nga bàyyi ma ak sama liberté totale ma def ko ni ma ko bëgg defee. ma ne ko su ma ko defee une semaine doxul arrêté ko une semaine laa la wax. appalu ma ko sax ay weer ak nangam nangam une semaine bu ma defee émission bu ma defee benn ñaar ñett ñeent cinquième bi bu fekk émission bi doxul amul amul coow. arrêté ko ma seeti leen lu ma def. Jupiter na ma kon ay ca deux jours Mm-hmm. Sénégal yëpp xam ne émission guddi gi am na DTV. waaw coow commencé bëri coow li commencé bëri moo tax à chaque fois responsable programme ñëw ku bees. Mm-hmm. bu ñu tegee programme bay wax teel émission foog ñu def ci ndàngam foog ñu changé ndàngam foog ci nañ bu ñu eggee guddi naa bu laal loolu moom la la koy wax non fii boobu bu ci wax. bu ci wax bàyyi boobu ne. Mm-hmm. parce que lam ma waxoon ba léegi maa ngi koy gis. te ba léegi amaguma lu ma ci metti parce que li muy def xam na ko te xam na ni mu koy defee. te mu ngi indi ay invité yoo xamante ne mosuñoo ñu télé bi man foofu laa ne. moo tax man ne xëccoo ma dara nga boo xamee li nga li nga li nga yor. xam ki nga doon du xëccoo dara. xëccoo dara nañ ñëw si émission parce que ñu tey si waxtu mu doon léegi mu jeex. Mm-hmm. si biir guddi gi. Mm-hmm. am na ay chroniqueurs yi nga xam ne ñoo ko woon. am na ñaar di di moo leen fa jëlee. gis nga ni Fafa. Mm-hmm. non foofu moom ku fa jógee wax dëgg yàlla yaa xëy gis leneen na ma damay et puis dama leen ko wax bi tàmbali man leen nag man képp koo xamante ne am nga lu gën guddi gi wala mën nga dem gis leen loo xamante ne moo gën guddi gi buñ la fayee salaire bu ko jar. Mhm. demal ce qui m'est arrivé Zeyna dafa am benn moment mu am leen loo xam moo gën mu envoyé ma message après ñu waxtaan mu ne ma dama gis ne war naa mun dem nangam naa parce que boobu mu ngi créé leader. 221 euh, euh, leader 221 ak benn affaire bu ma doon teg. Mhm. ma ñaanal ko ne ko bon vent yàlla na yàlla defal taw féex ci li ngay def. Mhm. Fafa dafa dafa dafa feebaroon te maa ngi la lancé benn appel parce que mënuma ko jot téléphone. Mhm. ci numéro am yëpp. ok dem naa fi mu dëkkoon si je pense dañu dafa tuxu ku ma xam ku ko xam. Mhm. woo naa la pour xam ndax mu ngi ci jàmm. parce que ni ko gëj a dégg. Mhm. damay tax sama xel nekk ci moom mais damay wat ñett numéro yëpp. benn benn du ci jàll. su ma duggee ci page ci toogam damay gis dugalatul dara. su ma demee Facebook aussi damay gis dugalatul dara donc moom dafa feebar benn instant. après. mu am sax rajo bu ko woo. bi mu wéree muy Fem FM man la woo. na ma DJ Fem FM woo nañ ma de sa rajo bi. dañ ma woon pour mu ñëw ñu def defal ma benn test dem naa léegi gars yi nañ mu bëgg jël ma ne ko demal nga góorgóorlu foofu ma ne ko mais tout le temps am nga sa place guddi gi. saa yoo bëggee ñëw ñëwal. Eva moom moom semaine passée rek invité naa moom sama Eva sama Eva la. Mbaye aussi benn moment talatul woon guddi gi mu ngi ci téléphone am bi di wëndeelu ci dëkk bi mbay bu ñu war a liggéey dama koy wër ci dëkk bi di ko di ko koj pour indi ko pour nga pour nga pour nga jóg problème lay doon <laughs> alors euh, temps yi gis nañ si wàllu musique euh, mm. critique yi bëri lool lool lool si nga xam ne nii mm-hmm. moom mooy Mia Guissé mm-hmm. alors euh, yow en tant que animateur mm-hmm. Mia d'accord boo gisee fu mu jëm nga xam ne au niveau international lay wuti am na sax ñu commencé di tooñ fi ñaan naan fu mu toll ne mën ngaa toog parce que am nga remplaçant mais si wàllu colin ak ki nga xamee ni teaser bi nga xam ne génnee na ko euh, mu tudd maanaam gauche wala droite. mu mhm. def coow lu bëri bëri Sénégal. Mhm. en tant que animateur. Mhm. nan nga analyser fi mu toll nii carrière Mia mais surtout euh, teaser bi euh, teaser bi nga xam ne génnee na ko mu nekk gauche droite lyrics bi xaw a choc ñu bëri si Sénégalais yi. moom elle a fait exprès la <laughs> elle a fait exprès la. il connaît les xam na xam na Sénégalais yi waaye fa jaar Sénégalais rek. am na ñoo xamante ne ñoo ko dàq way fuuf. ay thèmes yu rëy la ñuy way kenn du leen faale. moom mu xam li sénégalais bëgg mu defal leen ko. ok c'est li sénégalais bëgg leen defar rek xam na lii bu ko defee. mu jur coow mu sànni leen ko. te xam naa ne denc nañ leen yoo xamante ne bu bii jàllee fii ak 2 mois 3 mois. mu génnaat beneen. parce que elle est artiste elle day wane boppam mooy suñu Beyoncé. <laughs> mais c'est mooy suñu Beyoncé mais euh, société Beyoncé ak ñun suñu société. Mm. Euh, dafa xaw am différence. Mm. alors est-ce que le fait que euh, Sénégal di ko critiquer ci solin bi. Mm. en tant qu'artiste moom moom moo tax mu koy def. voilà waaw en tant qu'artiste il faut ñu def la part des choses aussi. Mm-hmm. Euh, mooy personne ak personnage tey saaneex bi nekk ci théâtre yi di wax lu ko saf. Mm-hmm. boo toogee moom ci mbedd mi du wax loolu. Mm-hmm. tey. am na beneen artiste boo xamante ne aussi amoon na fi genre détail yooyu noonu. mais il faut aussi ñu ñuy def la part des choses. xool kii ni tenue de scène la sol wala tenue clip la sol. ak bu nekkee këram wala moo dem seet ay mbokkam wala moo dem seet ay nitam ndax dina ko sol. beneen bi nag mooy mu bàyyi xel aussi que Sénégal ñu nekk. te boo nekk ci réew moo xamante ne aussi euh, jullit ñoo fi ëpp. te aussi nga judd doon doomu jullit aussi da ngay sóoraale. sunu ay valeur ak li nga xamante ñu ñoo ko moom du la tere def sa carrière mais da ngay sóoraale donc loolu laa ko mën a xëy na aussi li li xaw a li xaw a jaaxal nit ñi mooy mhm. euh, ni mu doon solo bu njëkk bi ak léegi loolu moo leen tike bu fekkoon nii la tàmbalee woon du am problème mais na mu doon solo mhm. bi muy nekk ak jëkkëram ex ex jëkkëram ak ni muy solo léegi nii mooy jaaxal nit ñi mais bu doon rek nii la tàmbale comme Queen Biz bi mu ñëwee rek dañ ko mujj noppal après am Queen après dañ ko noppal nga xam ne ne kii lii mooy stylam mhm. ñu bàyyi ko te loolu bokk na ci li ko jaay tey ci musique bi mhm. mais tout le temps dañuy sóoraale aussi dañu am ay valeurs yoo xamante war ñu ko perte waaye Euh, yow wax naa la ko animateur polyvalent nga. moo tax mhm. dañ dugg si wàllu làmb. gis nañ euh, li nga xam ne nii euh, dal na si nga xam ne nii la de guerre la. suñu soppee parce que képp ku doon xaale di ko suivre. Mhm. référence la woon si yow. donc doon nga xam ne tiis bu métti la. Mhm. mu nekk lu metti déjà di ko ñaanal tey rek je pense waroon na toog ak procureur bi bureau am mhm. procureur waroon na gisante moom parce que démb maa ngi invité son frère mhm. euh, son bras droit sax laay wax mooy Kalanda mhm. ñu waxtaan ci ba mu ne suba sax war na dem gisante procureur toog waxtaan ak moom nit nattu yàgg na ci àdduna nga nit kuy kuy dund ci kaw suuf jàppal ne bés dina ñëw nga am nattu bien sûr nattu moom mënul ñàkk moo xam degré ba muy toll nag dafa am nattu yu gën a metti comme moom mu ngi tey rëbës ñu téye ko muy dund bu xëyee dina sangu dina jàpp dina julli dina génn doxantu dina lekk na sant yàlla am na ñoo xamante ne semaine bi ci ginnaaw ni bis bi daanu OMG am na sunu yaay bu ci ñàkk bakkanam muy yaayu Ismo bu nekk suba teel ah booy Ismo yaayam la moo ko jur euh, te dafa jóge këram maire bi di seeti jëkkëram bi nekk dans le coma muy papa Ismo yam ci yoon bi ah. eggul hôpital pour gis jëkkëram pour seeti ko lu ko gën a metti donc lu la dal rek <laughs> na ko sante yàlla man maa ngi nii tey di ñibbi yàlla rek a xam ne dinaa egg sama kër inshallah yàlla rek a xam mhm. donc lak na gëm ne lii dafa bokkoon ci destin am mhm. man bi ma njëkkee mettre en garde à vue ci sama liggéey. parce que boo nee garde à vue yam pare ñu jàpp leneen la woon. <laughs> ci sama liggéey. Uh-huh. fekk ñu defoon benn benn poste boo xamante ne. dañ ko def après ñu ne non dañ diffamer nit ki. Uh-huh. ñu convoqué ñun ñëpp ñu mettre en garde à vue. Uh-huh. après man bi ma demee ci garde à vue bi après ñu man fekk sax dañu ma doon ree parce man dama jàpp man dama dem tàpp toog sama kër quoi di xaar ñu woo ma ne ma mujj gi man maa doon laaj gars yi la mooy seen problème ku nekk ma lay déglu après nekk journaliste seen biir quoi ku ne ma la yow lan moo la fi indi nga ne ma man ma kii nangam euh, benn xaalis bu ma joxoon après ma jox ko sama waa ji waa ji lekk ko mais après ñu ma topp ma nangam nangam ma ne ko yow sa kaa kon yow mun na bañ a compliqué parce que boo fayoo ñu bàyyi la. ma ne keneen la moo la kii mu ne man moom dañ ma jiiñ dina ma doon yàqataan benn xale ma ne ko sa kaa dina compliqué de. trop ma ne ko sa mm-hmm. ki ci affaire ay passeport mooy affaire wu. Euh, jijàk mhm. période boobu la woon juróom jijàk foofu la ma fekk mhm. ci cellule bi bi ñu leen indi fa lañ ma fekk benn waaw mhm. maa ngi koy nuyu sama frère ma yeew gis mu ne ma looy def ma ne ko loo fiy def koy <laughs> looy def donc loolu yëpp li ko li ma ci li ma ci bëggoon tënk mooy destin nit munul romb destin maanaam lii la yàlla tega ci sa carrière ne bi nga juddoo ba say waajur indi la ci àdduna yaa ngi dem mais xamoo fan ngay mujjee moo tax képp kuy reetaan la de Guiers 2 wala nga yéene ko ko. xamoo fooy mujjee. donc Lac sunu frère la nit ku baax la nit ku jullite. dem naa këram benn journaux dafa ma benn émission mu may apprécier te amoon sa affinité bu ak moom ah. mu toog xool ma ne ma mbaa xam nga ne guddi bu jotee walaay seetaan. ma ne ko ah bon ma ma yow man sama fan sa nga yow. parce que ma ma man ñeme naa yow ñëw toog sa émission. waxtaan ak yow. parce gis naa ni ngay defee émission. démb frère mi di ma confirmer ne ma Lac de Guiers bu génnee. balaa muy dem fenn fii laa koy guddi gi. incha allah mu ñëw am lu mu leeral. parce que fii la mën a leeralee li mu bëgg leeral. Mm-hmm. te kenn du ko mere. donc loolu sant yàlla la en tout cas di ko ñaanal. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla jàppale. Mm-hmm. ci li mu nekk parce que comme dafa nekk ci présomption d'innocence. ñu ngi nekk ci enquête bi. munoo ci dugg. affaire xaalis temps la war a joxe joxewul temps. dafa am xaalis jàmm yu enquête affaire visa. allahu axlam yàlla rek a xam la mooy li wóor procureur mooy xam ak avocat ak juge mhm. nañu bàyyi ba mu taxaw bu leeralee yàlla ko yàlla dimbali ba mu jógee fa dem dellu ci njabootam amin amin ñu koy ñaan bu baax a baax alors lu ñu mayoon si temps fu mu toll nii jeex na alors mm. bu nekk sa dernier mot si émission bi la lay doon ak di jox Sénégal yi rek rendez-vous incha allah le 29 le juin incha allah mu nekk date boo xamante ne datu artiste Sénégal yëpp la mhm. datu africain yëpp la datu yëpp la musique la benn date la benn jour la day jàll ñu jàll ci yeneen événement parce que bokk na ci li nga xamante ne tey képp kuy artiste ñaan nga yàlla taxaw ci saal yu mel noonu mhm. mais boo fa taxawee aussi jàppal ne du sa challenge mhm. comme li Waly wax si di zénith boobu noonu du challenge da koy romb bu dem dóori beneen saal muy Bercy bokk na saal yi gën a rey après nga dem ci yeneen saal yi nga xam ne ay quarante mille places la et c'est possible parce a ay artistes doo nga koy def mhm. ay nit ñoo koy seetaan si yàlla na yàlla dimbali ba ñu àgg ceeg jàmm ñu def ko ni mu waree après ñibbi si ñëwaat Sénégal. et puis la musique sénégalaise moom mooy gagné. Mhm. di la gërëm di gërëm aussi waa Télé Sénégal TV yëpp. ci accueil bi macha allah ak liggéey bu rafet bi nga xam ne yéen koy def aussi. Mhm. di leen ñaanal fi ngeen bëgg egg yàlla na fi yàlla àggale. di sant yàll bu baax a baax di santaat suma sëriñ. Mhm. Baye Niass ak uh, sunu xalif. muy Cheikh Mahi Ibrahima ñas ak bépp xalif généraux bu nekk Sénégal. di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi sunu kanam ñu gudd fan lool te ànd ak wér. damay dégg olof njaay di wax wala boog ñu ba di ko wax na li ñuy wax bu jubee ci yàlla la mhm. bu dëngee ci ñun la man ma ne li ñuy wax bu jubee ci yàlla la bu dëngee mhm. ci ki koy déglu la ça dépend ci li may dégloo waaw ak perception bi nga am ci li may wax. am merci beaucoup jaajëf un plaisir de partager plateau avec vous DJ l'animateur bi nga xamee nii euh, comme ni ko waxee moo di trophée bu rëy bi comme ni ko waxee moom ci ay trophée lay lay teg carrière donc ku mën na def comme ni ko gars waxee alors merci beaucoup ñoo ngi jaajëf bu baax baax di jox prochainement si beneen artiste wala beneen célébrité ak ku mu doon dans votre émission une heure Sénégal ciao merci beaucoup